thank you يشهد إن المنافقين لكاذبون يا من بأمداهه تعطيني البصر يا مصطفى يا رسول الله يا بصر يا من بأمداهه تعطيني البصر يا مصطفى يا رسول الله يا بشر صلى عليك بتسليم بلا عدد باخ قديم له الأسياء والقدر ñoo ngi ci jumaa ji di jumaay sëñ Abdoul Ahad ji ci Wakhinane Nimzatt ci suba ba tey ñoo ngi fi di ko liggéey di ko set setal di ko liggéey ci liggéey anam bu rafet di ko refar ndax jumaa ji ah, liggéey bi pareegul sax karo karale gu ñu miir yi ñoo ngi ci liggéey bi ba léegi si ñun jigéen ñi ba àjjuma bu jot ñun ñooy nekk di bale ah, jumaa ji di ko defar jumaay jigéen ñeeg jumaay góor yi ak xale yu góor yi di ko defar ah di sant di sant yàlla di sant imaam beeg sëñ bi nga xamee ni si moo ñuy jiite di ñu jaarale ci yoon bu baax ndax man ku ma woo ci lii dama ciy sawar ndax sama maam ji nga xamee ni moo jur sama baay sax ci jumaa ji ci jumaa lañ ko suul ndax ci jumaa man maam ju ma am imaam la. kon nag euh, euh, baay bu ma am imaam la ñu sant yàlla bu baax a baax ndax néegu yàlla kuñ ci woo rek da war a sawar. nag waa TFM nuyoo spécial boo xam ne dama leen koo bereel à travers monsieur le ministre Youssou jigéen Ndour ak directeur général am ak toute équipe boo xam ne mi ngi liggéey ci biir TFM ñi ngi rafetlu acte bi ngeen def ndax environnement dafa am solo hygiène dafa am solo surtout nag fu nit ñi di daje di fa jàngale yore fa daara alxuraan bi nga xamante ne daara ji xaa xaadim Thiam moo ko yore di ci jàngal suñu doom yi tout tànke ak suñu sët yi kon su ngeen ñëwee ñëw jàppale ñu si suñu biir quartier suñu biir koñ di liggéey ci environnement di ñu indi hygiène di set loolu dañ ciy sant di si gërëm di ci gërëm tout équipe ministre bi nga xamante ni mi ngi nekk biir TFM te buñ leen limal ci jumaa rek xam ngeen la mu laaj soxla nañu setala soxla na nañu ay basang soxla nañu ay lateur ay kilim sax buñ ko mënee am soxla nañ ko ndax lépp dañ ciy jàpp rek te yàlla tax. maa ngi bëgg nag suñu jàkka ji lu ci waay mën rek dimbali ndax noo ngi ci am itte bu saa su nekk saa su ne ñoo ngi si wante nag ndimbal doole toomul doole doo mën a dem noo ngi sàkku képp ku ñu si mën a dimbali rek dimbali nu si jàkka ji ndax bëgg nañuy karo bëgg nañuy karo bëgg nañu ay lu ñu dimbali ci suñu moquette yi bëgg nañu ko. ku nu karoo ñu jël ku nu miireel ñu jël ndax tànk miiréew ñu koy duñu mën a bale ba mu set waaw waaw ñuy doole ko waat kii di monsieur le maire di Racine Talla yore commune Wakhinane Nimzatt bi jël ñu nekkaat ci réseau bi tam di fi liggéey di fi liggéey tam liggéey bu rafet kon buñu jógee dañuy defaraat jàkk jumaa ji te jumaa ñun ñu dëkk fi mu jëloo ñu ci réseau bi ñuy liggéey ci réseau bi kon ñu war nañoo mën a taxaw génn ak suñuy élément ñun tam jàpp waa réseau bi nag majeure partie bi yëpp ñëw nañu jàkka ji dafa xaw yaatu ñee ngi ci ginnaaw ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy njiit yi ñu ñëw taxaw jàkkaarloog yéen def suñu participation di leen gërëm di leen sant di sant nag maire bu baax a baax jumaa ji rek lañ fi am waaw ndax ci lañ ñuy liggéeyal yàlla yoon tamit te ñun ay mag lañ nekkatuñ ay ay xale te loo mën a daw rek daw ngir yàlla ko ndax yàlla gëmul nelawul jaawul di fi kenn ak kenn te foo toll yàlla nga fa toll kon yàlla ñu yàlla xiit ci boppam kon ñoo ngi julli ci yonent bi tedd sallallahu alayhi wa sallam di topp ci yéen fas yéene rek yéen góor ñi seen tànk rek ñu teg ko fa lu lu ngeen yéene nag ci liggéeyam Serigne Touba ak Maam Jaara rek fas nañ ko yéene ànd ak yéen ñoo waa daayira Maam jaar bépp ak waa daayira Maam Saalikal Jinaan bépp ak ak soppee Serigne Fall yëpp ñun ñëpp ñoo ngi ànd Youssou Ndour nag ñu ngi koy ñaanal moom itam yàlla na fi yàgg waa Sud FM ñu ngi leen di ñaanal ngeen yàgg waa TFM ngeen di ngeen yàgg fi te wér ba li nga yéene ko ko tax a boo xam ni waa TFM ñoo ko def waaye santaat ak gërëm bu baax ndax waa koñ bi yëpp génn nañ soxna yi génn nañ suñu yaay yi tu tànk yi génn nañ ñëpp génn nañ ñu ngi santaat ñëpp bu baax a baax di xamal nit ñi nag ne set setal bi ñëw na waaye nag jumaa ji am na lu si des lu bëri loo xam ne bëgg nañ mbokk taal bi yëpp jàpp si maanaam des na karo te peinture gun ko dañ koo weexal ibbi ko pour ñu mën see julli àjjuma ñu ngi woowaat ñëpp ñun ñëw jàppaat ndax mbooloo mooy doole bu ko defee ñu karale jumaa ji pentiir ko eggali yéene ji nga xam ne moom lañ ci amoon lépp. di leen xam ne jumaa ji moom ñun ñii dong lañ ñi ñi nga xam ni ñoo ko faral di di bale sek ajuma nga xam sek ajuma dañuy bàyyi suñu ti yëpp ñëw si jumaa ji bale ko yeesal ko ba jumaa ji yees bañ julli ba pare ñu ñuy doog a delluwaat suñu kon ñun daal ñun li nga xam moom lañ gën a soxla soxla nañ aspirateur yi nga xam ni moom mooy nekk si biir jumaa ji nga xam suñ ko mënee bale bu baax a baax dina mën a set waaw job ma ñi ngi koy bale waaye bale bi métti na waaye tamit sant suñ borom rek bu baax baax ndax liggéey jumaa ji moom dem ba nga xam ni moom amoo dara looy def lu sek àjjuma nga ñëw fii di yeesal jumaa ji moom loolu moom ñu ngi ciy sant bu baax a baax waaye nag bëgg nañoo am ay jumtukaay yoo xam ne nii jumtukaay yoo xam ni tey suñ déwee bay bale bay jëfandikoo jumaa ji ko bale dinañ gaaw te dina yombal suñu liggéey tey dina gaaw lu si mel ni aspirateur soxla nañ ko bu baax a baax nga xam ni na mën a génn suuf si biir ndax ay bale rek la ñuy yor dañuy bale noonu waaye suuf si day si biir biir a ñi ngi ñaan nag képp ku ñu si mën a dimbale rek nga dimbale ñu si ñu am aspirateur am loo xam ne suñ ko mënee bale daal képp koo xam ne dugg nga si jumaa ji di julli si àjjuma daal diñ si mën a kontaan baax baax di si mën a gis suñ borom bu baax a baax a baax di sant bu baax euh, suñu waajur waajur xale yi waajur xale yi maa ngi leen sant bu baax gis naa si seen teewaay ci set setal bi di sant bu baax ñëpp képp koo xam ne teew nga rek ñi ngi lay sant di la ñaanal di sant waa groupe Futurs Médias waa groupe Futurs Médias ñi ngi leen di sant bu baax a baax wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na seen liggéey am na solo lool ñu ngi leen di ñaanal suñu borom taxawu leen bu baax a baax a baax di sant mbooleem ku fi teew rek ci sa setal bi rek ñu ngi lay sant waaw di rafetlu bu baax a baax nag seen teewaay fii ci biir jumaa ndax bi ñu wootee ñëpp wuy si nañu murid ak tijaan yi xaadar yi ak laayeen yi képp koo xamee ni yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah wuy si nga ñu ci liggéeyu jumaa ji jumaa nag néegub suñu borom la kenn moomu ko moo taxit bi mu wootee waa gox bi bi ma duggee ci koñ bi kenn ku ne damaa dem sa biir kër yëgal li waral jotaay bi ak li tax ñu woote fi woote bi nag woote bu yomb la woon ndax waa TFM bi ñu leen woowee maanaam woote bi yomb na yombaay goo xamee ni maanaam dafa jéggi dayoo jumaa yi suñ borom ko bëgg a liggéey liggéey bu rafet ndax karoo biir gi de peinture bi des na liggéey yu bari des na ci biir jumaa ji nu war a liggéey di sant bu baax a baax a baax nag mbooleem koo xamee ne rek yaa ngi ci biir gox bi ñoo ngi lay sant fàttewul na sunu soxna sunu sëriñ sëriñ Abdoulahan Mbacke mi nga xamee ne daa nekk ci biir jotaay bi soxna Fatou Mbacke di suñu waajur di suñu kilifa nekk fii ci biir jotaay bi fàttewuñ ko di fàtt di fàttaliku ñëpp koo xamee ne rek da ngaa teewoon ci biir jotaay ba ñoo ngi lay sant di la gërëm first met you, I suba ba léegi ñu ngi ci gaa yaa ngi fi raxas euh, jumaa ci biir ñu ngi raxas ci biti ñii ngi ci toilette bi ñii ngi ci morgue bi. groupe Futurs Médias nag jóguñ ci lenn pour jàppale askan bi jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable jubaay yi di leen dimbali ci set setal bi ñun nag xeebuñu dara. groupe Futurs Médias dafa jóg uniquement pour jàppale leen. ñu ngi woo partenaires yi xeebuñu dara lu waaye am rek na ko indi. salaamaaleykum man la Koura Dieng euh, jóge ba Mermoz MTM ancienne piste dañu ñëw fii tey Guédiawaye pour tourner benn émission ak waa TFM Setal Juma ñun nag yàgg nañ koo def ça fait deux ans mais tey bi yoon dañ siy tourne dañu ànd ak waa TFM pour tourner émission léegi fas yéene ñu ànd ak ñoom fépp fu ñu jëm bépp dëkk bu ñu jëm pour tourner émission bi. <laughs> ñun waa MTM képp ku ñu bëgg jot boo ñu wooyee si numéro bi ni ñu jot 77 307 15 81 ñu ngi nekk Mermoz ancienne piste. And those days we used to argue But there was not one thing that could bring us down Cause we all... set yonent bi daf koo digle an nadafatu min al iman wax na ni set ak a nettoyé defar ak a raxas setal dafa bokk ci gëm yàlla tey xale yi daje woon tey ak magi jàkka ji ngir raxasaat jàkka ji nettoyé ko waat ba nu mën fee gën a jaamu yàlla mu gën a sell gën koo sellal euh, euh, kilifa yëpp nag wax dëgg yàlla macha allah teew nanu sëñ bi nee ba mu tàmbalee liggéey yàlla bi ba fii mu nekk gis na fa mu wootee góor ñi ñëw jigéen ñëw mag ñëw ndaw ñi ñëw te loolu jëmm yàlla rek a tax waaye nee na ma ngi leen di bàyyeeg yàlla mi xam ne moo tax ngeen di ko jëf yal na leen fay ngën ji pay ci dara yonent bi barkeb Xaadim Rasuul de cabinet bu Racine Talla mi nga xam ne moom ma fi yebal boole ma ak ay kilifa yoo xam ne ña nga ca mairie ba di yëngu léegi yebal na ma ci sëñ bi ñun ñëpp yónni ñu ñu su ngeen ñëwee nañ ko nuyu sargal ko gan ñi nga xam ne tamit ñoo fi ñëw. nga xam ni set setal bi moo leen fi indi tamit ñu sant leen gërëm leen muy waa TFM ndax kat moom nee na lépp lu ñu def ci commune bi rawat na nag si jumaa ji moom jàpp na ni moom lañ ko defal. seen liggéey bi waa TFM su ngeen demee ne waa TFM ñaanal nañ leen ci béréb bi yal na yàlla dool di seen euh, yiw ak seen teraanga defal ko waa gox bi gox bi nag dañ leen di sant leen gërëm ndax ñoom ñëpp benn bopp lañ muy góor ñi di jigéen ñi. yal na leen yàlla fay yal na yàlla dolli sutura si njaboot gi it na yàlla wàcce jàmm ak yiw ak xéewal ak tedd nga ak teraanga ci ñoom ci daraja yonent bi barke xaadimal Moustapha sëriñ Abdoulaat jërëjëf jërëjëf jërëjëf daayir Masalikul Jinaan ñu leen di xamal ne daal liggéey bi moom ubbi waat nañ ko fas nañ yéene fan yu néew ñu tàmbali ko ba lépp loo xam ne waaye da ko ciy def mu indi ko ñu def ko ci bokk ko liggéey ba nuñ bëgg mu mel ni mu mel ni fa inna sikra tan fawul moomin li coo li bëri bëri bëri yëpp fii juma la juma julli képp lañ koy doyee juma julli rek lañ koy doyee fii juma la li coo li bëri bëri yëpp fii juma la yaa ayyuha lazina amanu rku wasjudu wahbudu rabbakum wa faalul xayra laalakum tuflihun wa jahidu fillah xaqa jihadihi wa jabaakum wa ma jaala alaykum fi ddin min arrajin millata abikum ibrahim huwa samaakum almuslimin min qabl fi aza li yakun rasul sayn wa takunu suada ala nas fa aqimu salat wa atu zakat waxtasimu billah huwa mawlaakum fa ni'ma almawla wa ni'ma nasir sunu boroom dafa ne yéen ñi gëm yàlla rukoo leen sujoot leen jiyaat te ngeen topp seen ngirub maam ibrahim mi nga xam ne moo leen tuddee muslim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah, ñu ngi nuyu mboolem jullit yi ak mboolem mbagi jàkka ji di jiital ci nuyu bi nag sun sang bi di sëriñ Siidi Muxtaar te xalifatu général te murit ah te di ko gën a jébbal suñu bopp ak lépp lu am di siyaara tamit sëriñ Musoobi Mbàkke mi nga xam ne suñu waajur la ah di siyaara tamit mboolem góor ñi ak jigéen ñi ah ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi di liggéeyal Serigne Touba di jumaa ji di liggéey bi nag ni ko waxee rek tàmbale woon ne ku nekk ak la nga man nga di ko joxe mu tàmbalee ko ci dërëm tàmbale ko ci diiwaan ku nekk loo am joxe ko ba nga xam ne toll na fii kon képp koo xamante ni def nga ko tamit ni ko yónnante bi waxee rek man banna lillahi baytan banna laahu loo xasan fil janna hmm. kon képp koo xamante ne tabaxal nga suñ borom fii am néeg ah sunu borom dana la tabaxal ñenn mu mag a mag pale bu mag a mag ci àjjana kon lépp loo xamante ni waaye def na ko ci doonte ab dërëm la sax jàppal ni kon tabax nga jumaa te loola tamit sunu borom dana doon loo xamante ni ah dana la ko fay ëllëg. kon jumaa ñi nga xamante ni ñoo koy taxawee ñoo la sunu borom taxawal seedeel ak gëm yàlla ah doon ñoo xamante ni gëm nañ yow ma xiyaam doon ñoo xamante ni ñu am solo lan ci sunu borom. kon taxawee jumaa doon na lu am lu am solo te góor yi jigéen ñi ñëpp fii ñu ngi jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax a baax ah di sant tamit ñi nga xamante ni ñooy TFM ndax an nasaafatu minal iman kon set bokk na ci gëm yàlla te lii ñu def ci tey déplacement ak seen i coono ñëw def ko a ah, te nan ko defee toujours sax ñang ca di ko defar muy set gi am ñu ko taxawee waaye nii ñu ko defee ñun amagun kàttan googu ndax lépp loo xam ne pënn la bu fi machine bi awee dana ko setal ba dara du fi des a ah loolu kon ak sant la xamante ñi ngi leen koy beral di ñaan tamit suñu borom ah, yëkkati leen ba fépp foo xam ne bëgg nañ faa liggéey tamit egg ah egg fa di ñaanal tamit seen directeur yi Youssou Ndour ah suñu borom gën ko saxal te taalibe ba lépp loo xamante ni bëgg na fa egg ci liggéey Serigne Touba mu egg fa ndax tamit taalibe la te xam nañ ak taalibeem bu wér a wér ah kon jumaa ji mi ngi noonu ñeen si yéen TFM tamit ñu kon di leen sant bu baax a baax si seen taxawaay ñu ngi leen di sant ah, di leen gërëm bu baax a baax kon jumaa ji mi ngi noonu yéen mbokk taalibe yi ñu lépp loo xam ne jàppoon nañ ci ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax lañ jiital ci lépp nag mooy liggéey suñu borom kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. this together. I'm so blessed to have you in my life. And now we enjoy these blessings forever. Paradise is where we are now. Paradise, a dream come true. Paradise, oh a feeling. maa ngi gërëm ñi ñi fi teew ñëpp di gërëm suñu oustaz mi mi nga xamante ne moo moo ñu jàngal lañ bis ni ki tey moo ñu woo pour ñu ñëw set setal maa ngi gërëm suñ yaay suñ suñu papa yi ñëpp ak ak maire yi waa gox yëpp ñu ngi leen di gërëm ak xale yi yéen ñii di set setal ñu ngi leen di gërëm yàlla ngeen fi yàgg te wér gërëm waa TFM waa groupe Futurs Médias ñi fi ñëw di set setal jàkka ji yàlla ñoom daal yàlla nañ leen yàlla fay ci barke Serigne Saliou Mbacke asalaamaaleykum yéen mbokk jullit yi maa ngi leen di gërëm man man la Ndeye Rokhaya Cissé tey la set satal bi maa ngi woo sama papa yi ak sama yaay ji fii jàkka ji ah luñ am rek nañ koy fii jàkka ji ndimbal mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ku gis nii ñu taxawee ci sunu jumaa ju baax ji di jumaa ju tedd muy jumaay masjidul aqsa fii ci géejawaay baylaay xam ni ñu ngi songu finition yi woo nag réew mi yëpp di sant nag balaa loolu télévision bii nga xam ni mooy télévision Futur Média ñuy liggéey liggéey bu am solo ci àdduna bi di tasaare bu baax liggéeyu islam bi. mu mel ni tey nag sunu gox bi di géejawaay bàyyi laay fii la ñu dikk ngir jël si lu soxal luy àggale liggéey bu rëy bii ci sunu ginnaaw ngeen di séen muy masjidul aksa bu Touba bàyyi laay xam ngeen ni béréb bii nu taxaw. góor gu baax yàlla yàlla dolli ko ay leer bi ñuy wax sëñ ker Fall moo ko moomoon mu nekkoon ay terrain mu daal di bëgg sëriñ Abdul Ahad ibnu Xaadimu Rasul mu nekkoon xalifatu saalis lil muridin dem ba Touba jox ko ko ni ko jox naa la ko haddiya sëñ Abdul Ahad xamal ko ni man dey néeg bu may dëkkee man néeg bu ñuy jox yàlla moo ma ci gënal su ko defee bu ngeen delloo da ngeen ko jël def ko néegu bi yàlla. jaam ña di fa daje di fa joxe seeni farata loolu moo nekkoon ndigalu kon sëriñ Touba may sëriñ Abdoul Ahad Mbacké nga xam ne moo yar taalibe yëpp yar murit yi ba mu joxee liggéey boobu nag ca année 74 ak léegi mag ñi def nañ ci lépp lu ñu mën mu yónni woon fi rakkam ju tedd ja Cheikh Mouhamadoul Mourtada al Mujahidul Kabir ki nga xam ni mooy jihaadkat bu mag bi nga xam ni wër na fépp tasaare fa l'islam partout dans le monde ba tey am na fi madrasa bu mag muy école boo xam ni lépp ci taw tawféexu sëñ Murtada la am fi tamit nag sunu jumaa ji nga xam ne fi mu ne ñu ngi war a song nag finition bi li jëm ci décoration li jëm ci ay karo te nag lu baax kenn du ko nëbb lu baax dañ koy feeñal ci àdduna bi képp koo xam ne lu baax ñor na la nga tàbbi sa loxo dugal ko ci su ko defee yàlla fay la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ni man banaa masjidan lillahi banallaahu lahu baytan fil janna nee na képp koo xam tabaxal nga yàlla ab néeg muy néegu yàlla muy jàkka wala muy jumaa nee na yàlla defal la kër gu mag a mag ca biir aljana kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax te xam ne liggéey baa ngi noonu loolu nag moo tax ñuy woo kon jullit yëpp nañ jàpp ci liggéey bi ay mag a ngi fi yoo xam ne lu ñu leen jox ñu def ko ci liggéey bi nu ngi sant mboolem autorité étatique yi di sant mboolem autorité religieuse yi nga xam ñoo fi nekk di sant mboolem notable yi nga xam ñu ngi ci quartier bi nekk ci gox bi nekk ci ville de Guédiawaye di sant tamit nag particulièrement la télévision TFM télévision Futur Média ci liggéey bu rafet dañuy ñuy def nga xam ne ñu ngi dox di dugg ci askan wi di xool la leen soxal ñu koy jéem a tasaare ba jullit di jot ci kon tàllal nañu loxo ñëpp seen mbokk fi nekkoon Abdoulaye Diop Bichri nu ngi leen di sant di leen baalu àq te di baal ñëpp àq liggéey bi daal mu ngi nii ci finition la ñu toll tàllal nañ ñëpp loxo lu waaye man ñëwal fii ku fi def daal ñu defal la ko sa biir bàmmeel doo ko ñàkk àdduna doo ko ñàkk àllaaxira ngeen ñun ñëw teewal fi le maire Racine Talla maire nag dafa euh, am empiègement démb dem ab dëj waaye yéene mooy ne woon ñëw fekke si ko ndax lépp loo xam ni yàlla dogal na mu wàcc ci commune bi di xew xew mbégte wala xew-xew bu mën a doon dafay ñëw ànd ko population bi rawatina jumaa ji nga xam ne bi muy xale fii la juddoo ci quartier bi yaroo fi euh, màgge fi di jullee ci jumaa ji yàlla dogal xew-xew bi am fi mu am yéene yi ñëw teew ci woo ñu ñu teewal ko fi loolu mbégte la ci noonu kon nag yéen waa télévision bi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci initiative bi nga xam ne ñëw ngeen defal ko commune Wakhinane Nimzatt kilifa diine yëpp ngeen ko defal jumaa yëpp ngeen ko defal imaam yëpp ngeen ko defal sunu xol sedd na lool moo tax euh, waa mairie bi futteeku ñoom ñoom ñëpp ñëw ànd ci ànd kook euh, jigéen ñi ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu set setal ci mairie bi ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp to find when I try to describe my love for